dal leen ak jàmm wàllu mbas mi ak yeneen i xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii ci quotidien ñoom dañoo def taxaw seetlu ci li nga xam ne kat moo ñuy xaar nag bu ñu weesoo coronavirus bi ginnaaw bañ ko dalee dem ci émission objection moom Mouhamed Dia nekk consultant bancaire fële ci Amérique moom desiwaat na ci jafe-jafe ne kat moom mooy xaar Sénégal nee na kat boo deful ndànk dina am jafe-jafe yu tar ci wàllu koom bi loolu li ko waral nag moom moo jëm ci wàllu coronavirus bi loolu nag ne li koy saafara moom mooy def gouvernement boo xam ne kat ñëpp ci dugg waaye tamit fexee nag ba indiwaat poste premier ministre Mouhamed Dia di jàpp ne Sénégal moom ci ay jafe tar la jëm na ci wàllu koom ak tamit ci wàllu social loolu li ko waral rek maanaam ni nga xam ne kat leen téye réew mi waaye rax ci doole tamit lu jëm ci wàllu mbas mi nga xam ne kat moo bett ñëpp ndax Macky Sall kat moom dafay farataal lépp lu jëm ci wàllu politique bàyyi tamit wàllu paj gi ci yéene kaay bi di l'info ba tey Mouhamed Dia yëkkati ay kàddu dina kat Macky Sall moom waroon na xool bu baax a baax fi nga xam ne kat fi lay dugal milliards yi nga xam ne kat mu wursee ci nga xam ne moo nekkoon ganu ci émission objection moom nee na kat ay jafe-jafe yu tar moom mooy xaar Sénégal rax doole ne kat moom moo jëm ci wopp moo a jóg Sud Quotidien dafa nga xam ne rek mooy dem bi dikk nga xam ne nag na démb ci diggante région yi ñu ngi xamal ne kat démb nag boo maraîcher moom amoon ambiance bu am tamit dem ci yeneen région dem bi dikk bi nag dafa dooroon ndànk li ko waral moom mooy am na bis yoo xam ne ba léegi la ñu ngi tànc fii ci biir réew mi ak tamit ñi nga xam ne kat mooy tukkat ñoom bëri wu démb li ci mën a jàpp rek moom mooy matuwaayam li jëloon nañ ko nag ci wàllu kaaraange ak tamit ci wàllu cet gi loolu la yéene kaay bi sur ko di fësal ci xëttam mu njëkk réew mi ko di di bind ne Dakar nag moom fi toll nii ubbeeku na ndaxte wàllu dem bi dikk bi dooral nag ca boo maraîcher dem ak yenn gaar yu bëree

garab gi moom buggul mukk virus bi nag maanaam jaar ci li nga xam ne kat mooy wàllu moyen de transport yi li ni mel tam la yéen kaay di bi di wax ni Sénégal nga xam ne kat ñu def maanaam point mensuel samedi lañ ko amal moo tax sax docteur Abdoulaye Bissou mi nga xam moom moo jiite centre des opérations d'urgence sanitaire yëkkati na ay kàddu ci ne kat moo jëm ci tolluwaayu feebar bi waaye tamit ñaaxal askan ñu jël seen ay a nekk fi mu toll nii fii ci biir Sénégal kii ne kat di li nga xam ne kat moo di geste barrière yi professeur Moussa Seydi moom yëkkatiwaat ay kàddu ci yéeni kaay bi di laas ñoom dinañ déborder ci yéeni kaay di critique professeur Moussa Seydi moom dafa dellusiwaat ci coow li nga xam ne kat moo am ci jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo hydroxychloroquine nee na kat loolu dañ ko bu baax a baax baax fii ci biir Sénégal ndaxte kat ñoom li leen wane moom sedd na seen xol ba tey ci wàllu woowu yéen i kaay bi di Rewmi Quotidien di fësal ne Sénégal nag am na dëgg ci organisation mondiale de la santé yéen tamit dellu wàll nañ ci procès Lamine Diack bi nga xam ne tey ji nag lay door fële ca Paris suñu naataangoo yi nekk ci quotidien l'info di fësal ne bokk na ci Lamine Diack dama Massar Diack ak tamit yenn ñeenti nit ñoo xam ne leen topp na jëm ci wàllu ay li nga xam ne kat moo di wàllu njuur njaaj ay dopage ak li ni mel vox populi di bind ne parquet de Paris kat moom fësal li nga xam ne kat la toppee kii di Lamine Diack ci yéenekaay bi di la Tribune Horizon Sans Frontières di ñu xamal ne dañ ko def rek ngir rek maanaam nasaxal li nga xam ne kat moom moo nekk Afrique waaye réew mi quotidien di fësal ne boo defoon ndànk kat nañ dàq procès bi ndaxte kat ñu bëri ñoo xam ne dañuy layool nag kii di Massata Diagne moom mënuñ teew fële ca France ndaxte kat dañ tëj frontières yi ci wàllu tàggal yaram association nationale de la presse sportive moom ANPS ci li nga xam ne kat mooy plateforme WhatsApp bi dalaloon na samedi nag président fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor seq waxtaan taskatu xibaar yi li waat ci poñ yu bëree bëri yéeni kay bi stade di fësal ne laaj nañ ko lu bëri ci li nga xam ne kat mooy football bi fii ci Sénégal ci yéeni kaay bi Les mu ngi fësal ne li ko soxal rek moom nekkul candidature maanaam li ko sant mu daal koy matale lu jëm na ci co-organisation diggante Sénégal ak Guinée nee Sénégal mu ngi wéy di loxoom Guinée ba léegi su ko defee ñu mën a amal co-organisation ci wàllu Coupe d'Afrique mbokk yi jàngeen jëf ba beneen yoon allahu rabbi bonjour à la Covid-19 et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce sur la Invité de l'émission Objection hier sur Sud FM Sen Radio et repris par nos confrères, le consultant bancaire et chroniqueur sénégalais basé aux États-Unis, Mohamed Dia, a indiqué que le Sénégal n'est pas épargné par un risque de récession économique à cause du coronavirus pour faire face à cette situation. Surtout dans les quatre prochaines années, il a aussi préconisé un remaniement gouvernemental avec le retour du poste de Premier ministre, un plan Marshall avec social pour notre pays, du fait, selon lui, de la à la mauvaise gestion de la riposte contre cette pandémie par le président Macky Sall, un président qui aurait privilégié des décisions politiques sur Dans le quotidien L'Info, Mohamed Dia déclare que Macky Sall pouvait mieux investir par le plan Sénégal émergent. L'invité de l'émission Objection soutient que contrairement aux autres pays qui peuvent pointer de la COVID-19, le Sénégal doit sa situation à un mauvais plan Il poursuit dans le journal que le plan Sénégal émergent est électoraliste. Nos confrères de Sud Quotidien reviennent sur l'assouplissement des mesures avec la réouverture du transport interurbain. Le péril s'invite sur la route barre la une du journal. Selon nos confrères, la gare routière internationale Les Beaux Maraîchers a renoué, mais anxieusement avec l'ambiance des grands jours hier dimanche. Quelques passagers ont très tôt envahi la gare routière pour se rendre à l'intérieur du pays ou leur localité d'origine. Après quelques mois de confinement à Dakar, le transport interurbain a démarré timidement du fait des bus qui sont retenus dans les régions depuis presque trois mois à cause des mesures d'interdiction de circuler entre les régions et une faible affluence de voyageurs. Un dispositif sanitaire et de sécurité est mis en place pour le respect du protocole conclu. Mon confrère Réumi Quotidien écrit Déconfinement du transport, pas de rush au beau maraîcher. Hier dimanche, premier jour de la reprise du transport interurbain, selon mon confrère du quotidien national Le Soleil, les passagers venus en masse hier à la gare des beaux maraîchers n'ont pas oublié les gestes barrières le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Maître Omariou, a remis des masques, des gels hydroalcooliques et des thermoflash Dans le même journal, il déclare que tout est en place pour respecter les recommandations sanitaires. Selon lui, le virus ne doit pas passer par les moyens de transport. Selon nos confrères du quotidien LAS, les gares routières seront ouvertes à 5 heures du matin est fermé à 21h. Le ministre de tutelle, Maître Oumar Youm, a pris un arrêté pour fixer les conditions d'exploitation. La reprise du transport interurbain intervient au moment où les cas augmentent. Plus de 4000 cas, 236 agents de santé. Les sur le danger qui guette le

on peut passer à une situation plus grave. Le professeur Moussa Seydi alerte dans le quotidien LAS, nous risquons d'être débordés. Selon nos confrères du quotidien critique, le professeur Moussa Seydi est aussi revenu sur le traitement polémique de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine et la prévention pour le chef des services des maladies infectieuses de l'hôpital de Fan. Ce traitement va se poursuivre au regard de son efficacité quant à la réduction de la charge virale efficace, mais aussi quant à la prévention des complications, entre autres. Sur le même sujet, Rémi Cotien écrit Le Sénégal a eu raison sur l'Organisation mondiale de la santé. Les journaux sont aussi revenus sur le procès de Lamine Diak, un procès qui s'ouvre ce lundi matin à Paris. Selon nos confrères du quotidien L'Info, Outre Lamine Diack, il y a son fils Pape Massata Diack et quatre autres personnes impliquées dans une affaire de corruption sur fond de dopage en Russie. Vox Populi écrit Le parquet de Paris révèle les charges contre Lamine Diack et compagnie. Lamine Diack comparaît ce lundi à Paris selon le quotidien national Le Soleil. Dans le quotidien La Turbine, Horizon sans frontières parle de complots visant à salir et à diaboliser un continent. Réumi nationale de la presse sportive, la NPS, via sa plateforme WhatsApp, a reçu samedi le président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor. Selon le quotidien sportif Stade, il a été interpellé sur toutes les questions liées au football national et africain. sans oublier son mandat à la tête de la fédération qui expire l'année prochaine. Se présentera-t-il pour un nouveau mandat? Il déclare qu'on Dans le quotidien Les Échos, il déclare, je cite, ma candidature n'est pas ce qui compte, je suis focus sur ma mission, sur la co-organisation de la CAN. Il soutient dans la tribune que le Sénégal tend encore la main à la Guinée. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.